waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu waat leen ziyaara waat dellu waat ci seen émission yi ñu doon bokk di defandook yéen fii ci Amsa TV fa tabarakallahu ngeen gën ko bàyyi xel ah di leen gën woo rek ngeen gën bàyyi xel site bi te xam ne site bu am solo la suite la boo xam ne yàlla ak yonent bi ak li amal njariñ société bi rek ci la ñu nekk ci loolu la dox guddi ak bëccëg suba ak ngoon moo tax daal dëgg-dëgg àddina bi yëpp war nañ ko bay xel ba tax tey na tey nag ñu bëggoon a laayante biir ndax diine moom laayante biir la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na diine daal laayante biir la mbokk yi ngeen xam ne nag waxtaan yii ñuy waxtaan ak yéen ci cadre fàttali rek lañ koy teg teg ku ci cadre wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran yàlla da koy wax ne ko del fàttali ndax fàttali mooy liy jëriñ ki gëm moo tax nit day fàtte toujours ñu dëkk ci di ko fàttalil kon tey ñu bëgg waxtaanee ci ay fee yoo xam ne tey dafa am ci société bi nu ñu koy dundee noo xam ne mbokk yi tey ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel te bala ñoo dem fenn ñu bàyyi xel li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ki nga xam ne min xusni islaamil marxi tarkuhu ma la yaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon ki gën a rafet diine mooy koo xam ne lu sa yoon nekkul rek bu ci dugg mbokk yi réew mi nag toll nañ foo xam ne ñu ci bari tey ci ñun kenn ku ci ne léeg-léeg dangay ngay lijjanti li sa yoon nekk bay lijjanti loo xam ne sa yoon nekku ci moo waral tey yu bari di am dangay ngay gis tey société bi li yàlla waxoon tañ war koo bàyyi xel ya yaa ayyuha alladina amanu ijtanibu kasiran min azanni inna baada zanni ismun wala tajassasu wala yaxtab baadakum baada a yuhibbu ahadakum an yaakula lama aqii mayitan fa karihtumoo wattaqullah mbokk yi yàllaay wax ak ñun ci alquran ne yéen ñi nga xam ne yéenay ñi gëm mbokk yi yàlla nee na na ngeen moytu yenn ci njort yi ngeen di njort ci doomu aadama yi ndax inna baada ne yenn njort yi ngeen di njort ci doomu aadama yi bàkkar leen di jural kon yàlla ne bu leen di espionnante ak bari ci jamono ji ñu toll espionnage bi ni mu baree ci jamono bii tey ñu toll da ngay gis koo xam ne day topp doomu aadama waxuma la di ko espionné ci di ko déglu waxuma la di ko espionné ci di ko xool waaye yëmutuñ ci loolu léegi ñi ngi dem ba yegg ci di wut ay caméra di filmer koo xam ne léeg-léeg ba muy def la muy def mbokk yi tàgguwu yëgluwul ci yow nga gis ku jël caméra di topp nit koo xam ne léeg-léeg amaana sax yow mi koy topp xamoo ko waaye am nga beneen kenn koo xam ne dafa jël alal jox la ngir ngay espionner te wala te jë sa suu mbokk yi bu leen di espionnante te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na woon man satara musliman satarahu laahu fi dunya wal axira Moustapha nee na képp koo xam ne suturaal nga ab jullit yàlla dana la suturaal aduna ak àllaaxira tey nag ñu toll ci jamono boo xam ne mbokk yi gis ngeen li xew te yeneen bi nee noon buñ demee ba toll ci jamono boo xam ne siiwal lu bon wane lu bon moo ñu gënal moo ñu gën a yomb wax lu baax wala siiwal lu baax da ngay gis ko xamal nit dara ba noppi waxal ko lam ko xamal ci lu bon te waroon ko nëbb ba noppi dem ba yegg ci waxal ko loo xam ne nii sax dara daanaka amu ci loolee lépp ngir bëgg yàq gor soo xam ne waxu la defu la lu dul yow kii da nga singili rek te sëñ Samba li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon rek tey boo xoolee ci jamono bii ñu toll Samba xolal feebar yi ni ñu bari tey ci jamono bi feebar yoo xam ne tey da ngay dem hôpital ñu xool la def scanner def e FOGD def TOGD yooyu yëpp tey ñu xool sa biir ñu ne gis ñu feebar li ko waral mooy tey da ngay gis nit ñi ci jamono bii li ñu dund mooy lan mooy dem ba tey di xaawi xaawi si suturu si nit tey di siwal lu bon di wax lu bon di jëf lu bon te nag ñi koy def en général ñoom kat nee nañu ay jullit lañu li yonent bi waxoon jàkk yi dañuy fees jumaa yi dañuy fees waaye seen xol yi duñu ànd kenn ku ci ne yaa ngi yéene sa bopp tey lu ko yàq ci ak dundam sàmba da ngay gis koo xam ne li ma wax léegi du wax deful nga gis koo xam ne sàmba njaay euh, meneen meneen Babacar Njaay mu taxaw fale nan lay def da koy sosal sosal ko yàq deram parce que star la mi ngi ci télé bi wala mi ngi ci rajo bi wala mi ngi waxtaan ci xam-xam gàmmukat la wala conférencier la nga gis koo xam ni tey moom li mu li mu am yéene ci dundam mooy fokk mu yàqal Babacar balaa am jàmm te mbokk yi Babacar sax léeg-léeg du yëg léeg-léeg mu ñëw espionné ko waxtaan ak moom ci waxtaan woo xam ne na muy def mooy day def enregistré ci poos am su génnee vilipendé la ci ci ci public bi bu génnee vilipendé la ci réew mi ba xëy na la ngeen doon wax yéen ñaar mënoon naa bañ a génn mbokk yi moo tax foog ñu delluwaat ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga bu ñu jàppee ci alquran jàpp ci sunna yonent bi nee na woon maa ngi dem mais bàyyee naa leen ñaar yoo xam ne ku ci jàpp mbokk yi du ngeen réer mooy alquran ak sunna problème yi yëpp nag ñi am mooy dañoo bàyyi njàngalem yàlla yàlla roy loo ñu woon yonent bi te mbaa yëg nga ne sàmba turu yàlla yi nga xam ne moo am ci quatre-vingt-dix-neuf noo dëjë yi dafa am turu woo xam ne yàlla mi ngi tudd ki am sutura am sutura noonu la yàlla tudd muy sattaar yàlla mooy koo xam ne dafa am sutura te yàlla nee na ku suturaalul nit moom yàlla ku suturaalul nit ëllëg soo ñëwee la nga doon def fii ci àdduna te daan ko nëbb waxuma la lenn dana ci àdduna bii waaye boo ñëwee day teg ay écran plat teg caméra yi ñuy wane xam ne kële diw la ndekante lam doon wane ci àdduna dara nekku ci moo tax mbokk yi fokk àdduna bii ñu toll ñu tàmm di suturaalante tàmm yit di wax dëgg ci suñu diggante xanaa xamoo Samba xam nga luy wax baat boobu ñu tuddee fen Samba xam nga luy fen mooy wax dëgg guñ la laajut soo waxee dëgg guñ la laajut rek fen nga dem ba gis nga Babacar mu nekk ci nangam donte dëgg la Samba jëw xam nga luy jëw jëw mooy tey man lii ma gis dëgg la mais wax naa ko ci ginnaaw nit ki li ma wax ci ginnaawam amaana su ko fekkee woon du ko neex loolu mooy jëw te li nga wax pourtant dëgg la nga ne diw sàcc la diw moom sàcc la d'accord day sàcc ñëpp xam nañ ne sàcc la mais fi nga ko waxee boo ko fekkee woon du ko neex sàmba looluy jëw léegi su fekkoon na da ngaa ba jël nag wax ko ci ginnaawam te li nga wax ci ginnaawam nekkul loolu la ñu tuddee boxtaan loolu la ñu tuddee da duural nit te duural nit léegi ci réew mi moo ëpp sàmba di waxal nit loo xam ne dara nekku ci sosal ko fenal ko wax loo xam ne nii tey dara wóoru la ci sàmba te wax lu dul dëgg samba benn fen moo gën a garaaw fanweeri njaaloo mbaa yëgga loolu sàmba njaaloo ak ni mu garaawee yàlla ne kii njaaloo nañ ko téeméer ci ay yar ku njaaloo nañ la ñam téeméer ci ay yar te pénc ma nag su fekkee ne danga am ñu ne soxna nag wala nga am borom kër ñu nañ la raj dañ lay suul ba sa bopp bi génn ñu sànni la ay xeer sàmba am na néew yoo xam ne ni sàmba xanaa xamoon ñu ngi dox ci kaw suuf tey jamono bi ñu toll am na ñoo xam ne sàmba ay néew lañu ñu ngi dox ci kaw suuf parce que li yàlla waxoon na buñ ko defee nu ray la yëpp tey sàmba ci loolu lañ nekk te mbaa yëg nga ne benn fen nag benn fen wax lu dul dëgg moo gën a garaaw sàmba fanweeri njaalo benn fen moo gën a garaaw fanweer ci ay njaalo te ni ñi tey ñi ngi dëkk ci wax lu dëgg sàmba wax lu dul dëgg jëf loo xam ne teguñ ko ci ak xam sàmba kenn kenn ci kaw suuf tey ko gis sàmba mi ngi ñàkk di suturaal ab nawleem kenn ku ci ne di xaawante sutura moo tax na ñuy ñaan yàlla yàlla deful ñu sutura asbil alayna rida asitri yashmulana wa walidaye wa shaaqi ma al ashami yàlla nañu ko yàlla boole defal te yëpp nag li ko indi mooy ñàkk xam bu ñu xamoon yàlla ak li mu jàngal fi mu toll nii sàmba yu bari danañ ko moytu mbaa yëg nga ne dinaa la jox tey juróom yoo xam ne ko bëgg xam te bàyyi xel xam yàlla ak na muy doxalee nga xam nooy jaamoo yàlla di mën a suturaal nit ñi juróomi ngi nii yoo xam ne sàmba dinaa la ko wax tey ku ko bàyyi xel da nga xam yàlla te danga nga mën a jaamu yàlla xam nga juróomi ban la képp koo xam ne bëgg ngaa wattu xam-xam bu am njariñ boo xam ne dalay jariñ fii jariñ la fa jëm foog nga bàyyi xel juróom ndax ñàkk xawante sutura bi yëpp mooy ñàkk xam ci base bi yëpp danañ ci ñëw nag émission bii di ñëw ci njariñu xam-xam ban njariñ la am ci nit ki lan lay permettre nit ki mu man koo def ak li mu jombale boppam ci man koo bañ a def mooy lan mooy sàmba ku bëgg xam yàlla te yor jikko ju rafet nga xam ne ñàkk jikko ju rafet moo ko waral tey te yàlla yonent bi jikko ju rafet la ko taggee woon nuun wal xalami wa ma yasturuun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnuun wa inna laka la ajran ghayra mamnuun wa innaka la ala xuluqin azimin yàlla jikko rek la teggeewun yonent bi moo tax ku bëgg am jikko ju rafet joojunte ku bëgg am teggin bu rafet na nga taqoog yii samba mooy foo di guddi bala ngaa nelaw del julli ñaari rakka samba am na koo xam ne day lekk ba suur guddi gépp mu koy nelaw ba 10 heures mu door a jóg ku bëgg xam yàlla yor jikko ji rafet sàmba bala ngaa tëdd guddi di nelaw sa uh, uh, uh, na nga julli walaw rakkaatay ni donte ñaari rakka la ñaareel bi mooy na ngay takkoog njàpp fottulu kuy takkoog njàpp yàlla day dindi ceew lu bari te sàmba mbaa yëg nga ne kuy takkoog njàpp kenn du liggéey jàpp la korteg yu bon yi ñuy def yëpp bu fekkee for di takkoog njàpp fi mu toll nii kenn mënul ci yow dara ñetteel bi mooy nga ragal yàlla ci li nëbbu ak li feeñ ñeenteel bi mooy sooy lekk sàmba moo xam ceeb la moo xam cere la moo xam maafe la moo xam lu mënti doon sooy lekk nanga lekk ngir jaamoo ko yàlla lekk ngir bàyyi xel sa borom ci ragal yàlla waaye bu lekk ngir bànneexu lekk ñi bëgg lekk léeg-léeg da ngay gis koo xam ne day tiim aw ñam di ci lekk ngir biir bu fees rek waaye du ko lekkee ngir jaamoo ko yàlla kon sàmba foog ñu roy yontu yàlla Muhammad maa ngi yemoon ci socc socc mooy juróomeel bi ab jullit day socc gémmiñam sàmba léeg-léeg nit wax ak yow xamoo boros rek doyul pâte dentifrice ak boros rek doyul de léeg-léeg nit wax ak yow sàmba da ngay bëgg sànni sa kanam ga fële billay léeg-léeg nit wax ak yow gunnu lay gémmiñ loolu baaxul sàmba jullit day socc Musawa nee na woon su fekkoon ne maanaam nekkul yërëm gi ma yërëm sama xeer wi ci charte farata yi tege ci seen kaw kon damay def socc mu doon farata ñoom dem na bay génn àdduna mënta socc ndax amatul kattan sayyidatuna Aïcha mooy yey socc bi di ko dugal ci gémmiñ gi di ko bombal ay bañam moom sallallahu alayhi wa sallam moo tax samba waa ji kenn du moom foog ñu rey ko ci ay jikkoom moom sallallahu alayhi wa sallam bàyyi Fatima ak Zeynab ak Umu Kalsoom bàyyi Roqaya bàyyi euh, Ibrahima baayu Qaasim ak Abdullahi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne durant tous ces 63 ans yi mu dund mboolem ku mu moom sallallahu alayhi wa sallam suturaal na la mboolem ku mu mës naw nga ko nga xam ne bi muy am at yu néew ci lañ ko tuddee woon moom sallallahu alayhi wa sallam ki wóor ki te mën a suturaal ay doomu aadama kon mbokk yi ñun su fekkee ne yàlla def nañu defal naa leen yonent bi muy seen référence defal naa leen yonent bi muy seen royuwaay te mënuñoo suturaalante mënuñoo jéggalante mënuñoo yërëmante jikko yu rafet yooyu yëpp nga xam ne mooy jikkoy noble sàmba mënuñu ci dara kon nan la ñuy reyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jikkoom yonent bi bala nga xam ay jikkoom bàyyi ko xel foog nga am ak cofeel ku mët sëkk nit bala nga foog nga bëgg samba maa yëg nga ne James Brown ñu ko bëgg ñu ngi koy jéem a mel ni mel ni moom ñiy woy fii ci àdduna façon vestimentaire ni ñu solo ñii di sol yeneen xeet am na yenn façon yoo xam ne ñeme moo ko tudd ndax boo ko tuddee ñu ne diw lay wax yooyu nag sàmba dafa jar bay xel tey ñiy roy ñooña sax ñi ngi jéem a mel noona te nag li cheikhul xaaj malik waxoon ne wa waajibun taatul haadi mahabatuhu kada itibau alladi yaati min al umami la an alamatu qaalu inna azama isticmalu sunnati min jumlati al umami wa laysa nafun ala hubbin bila amalin wattaabi an sunnati almuxtaari tartanimi bëgg naa yonent bi sopp naa yonent bi te yow yonent bi jarul lool dara kon da ngay wax rek bëggu yonent bi munoo yor benn jikko yonent bi yow yaa gën a iñaan yaa gën a mën a xawi sutura amoo benn yërmande te ku la tooñ nga fayu nga fëgg sa dënn fayonteeg moom te yonent bi musul fayonteeg kenn wa laysa xayrul wara yajzi bi sayaatin yaafu wa yasfau safaan an musiihimi kon dañ leen jéem a roy jukko yooyu nga xam ne yonent bi yoroon na ko wa alyanu naasi xaalu lam yakun abadan bay bayna saabati za maddin min alqadami koo xam ne ay jikkoom yeggoon na ci rafet ba daawul toog talal ay tànkam kum masa dajanteeg Moustapha moo la njëkk nuyu yontu yàlla Muhammad su daan toog musu lekk doon kenn nit maa kaana yàqulu xayrul xalqi munfaridan ndax li an anna zalika xiimu niksi wal barami mbokk yi jukkoy noobul yooyu jukko yu rafet yooyu ñu jéem koo jël ci yontu yàlla Muhammad ndax mooy tax sunu société bi ñu mën a vivre jamono boo xam ne ni dañuy vivre ci symbiose dañuy dund dund boo xam ne ñëpp darañ bokk am jàmm loolu mooy li nga xam ne mooy li am solo mbokk yi politiciens yi nañ bàyyante xel bu baax seen biir nañu bañ di tabarakallahu xastante saagante xaawante sutur bi surtout am ci politique bi bari na loolu léegi jamono bi da ngay nekk nit ngeen bokk benn parti ngeen di waxtaan guddi ak bëccëg tey nga transhumé dem ci beneen parti la nga xamaloon sa leader boobu yëpp nga wax ko fee wax ko ci télé yi wax ko ci rajo yi mbokk yi loolu rafetul jullit gor moomut loolu kon nañ leen gën a góorgóorlu yal na yàlla sàmm ñëpp yal na yàlla aar ñëpp yal na yàlla sutural ñëpp ñi ngi santaat bu baax fa tabaarakallaahu suñu caméraman Serigne Samba mii toog nga xam ne liggéey bu rafet bi bu liggéey bi jaaree yoon moom la waaye di sant suñu Serigne tabaarakallaahu Serigne Moustapha Dieye mi nga xam ne ay émission jàpp naa ne léegi addina bi yëpp ñu ngi koy suivre ñu ngi koy seetaan gën leen di abonné gën di partagé ci Amsa TV ngeen xam ne daal dëgg-dëgg tabaarakallaahu chaîne la boo xam ne nii site la boo xam ne site bu am solo la yal na yàlla dolli ñëpp sutura yal na yàlla sàmm ñëpp na bi sitrikal jamili fi diini wa dunya bila tafsili rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirina bi xormati allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliq walxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadri wa miqdaar alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalina walhamdulilahi rabbil alamin salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh